bëgguma la dëggal. parce que man Père Gaston moom laa signal. Mm-hmm. Père moo wax ma. te Père Gaston mën na sëkk pour tëgg beneen combat bu mag sax bu romb Balla Gaye. Mm-hmm. mën na macha allah comme naan. Mm-hmm. donc moom laa waxal keneen ku ne ci ginnaaw wala ngay wax ci ginnaaw wala ngay def sa ruube ci mais nag waa kër Balla Gaye yi ñu génnee wax ma li ñu may wax yëpp. wala ñu def li ñu waroon def waroon nañu am grandeur. bu ñu bëree Bombardier pare waroon nañu am grandeur ñoom it génn wax. waaw parce que boo dalee ci kaw boo ñaa wax ko déstabiliser ko waxu lu ne mu daanu nga jubilé kontaan wax li ngay wax hmm. yow tamit ba nga ñëwee ci géew bi ñu daan la ngay soulager ci géew bi war ngaa génn wax de waaw wax ne nag man daan nañ ma jëri bu leer hmm. ngay soulager géew bi neen sama digg dafa métti damaa jël stade bi yëpp fecc ko riita mbale xëy ne dangaa sa digg day métti yow war nañ génn wax ko de hmm. ñoom léegi ñoom tamit leeral quoi ñu laaj leen tamit ci booñaa li ngeen ko wax ñoom ñu leeral parce que moo tax ma xëcc la rek na fii rek moo fi ne kenn newu fi mm-hmm. ku fi dem da ngaa téye dara téyewu ko suñu borom moo ko teg ci loxo ñëpp mm-hmm. bu ñu waree bëre maa moom dañuy bëre bu ñu warta bëre te Sénégal yëpp bëgg suñu combat te waruñoo bëre duñ bëre bu nekk Balla Gaye bu waree bëre mm-hmm. dinañ bu ñu warta bëre te Sénégal yëpp bëgg suñu combat te waruñoo bëre duñ bëre parce que ñu bëre ñaar koy def man ak nu mu mën demee su ma bëre woon ñu daan ma wala nu mu mënti demee su ma jëlee avance jàmm signé ko damay pare rek bëre am nu mu mën doon ba surtout maa ma wan ni kooku maa ko mën yàgg wax ne du ma moroomam ci làmb yàgg lu ma fi def defu ko fi yàgg maa wax lu ne sànni ma xel lu ne donc donc kooku nag soon bëree seen combat toj nga bëree mu jeexal suñu borom indi li safaan moom mu bëree jeexal suñu borom indi safaan parce yàllaa ko def ñu hmm. ñaan ñi ba ñuy jot avance xamuñ ku nekk da nga def da am hmm. am sax waru am sax débat donc bu débat ñëwee rek ñun day jël na nga baal ma est ce que yéen ñaar seen combat fi mu naroon taxawee du combat yërmande est que maanaam tey ñi farak Boy Niang ak ñi farak Balla Gaye duñ leen yërëm boo jógee ci ñaari défaite nga am ci Lac de par recours am ci Tapha Tine par cinq avertissement ñu euh, Balla Gaye jógee ci ki nga xam ne mooy bombardier tey est-ce que bi mënta nekk combat yéen. non combat boo xam ne day suuxal. non làmb làmb amul combat yéen mëne. làmb amul combat yéen mëne de xam mm-hmm. parce que ñaari mbër am na fu ñu toll. Mm-hmm. kenn gi day daan kenn gi taxaw loolu moo ne ci làmb da daan dem defaraat sa carrière taxawaat. moom mu daanu mu wàcc dem dafa dem bëri ñeneen loolu la fi ne lu mu mënti doon bu ñu bëree lu mu mënti xew kenn ki day dem bëri ñeneen keneen ki dem bëri ñeneen loolu moo fi ne ci làmb parce que gis nañ fi combat bu ne te man ak sama combat Balla Gaye Boy Niang mënoo ko wax di tudd yërmande du combat bu ñuy négocier du combat bu ñuy yërmande du combat lu ñuy ñaanante dara ñaanu ma ko mayu ma noonu la moom mooy bàyyi galaas moom man mi nga xam ne da ngay bëgg lu nooy yow yaay dem bàyyi galaas ñun ay fi ñu toll naa business de ñun fi ñu toll nii boo ñaa carrière fu mu toll nii nekkul business nekkul wut xaalis nekkul dajale ay combat wut lañu yóbbaale ñun tolluñu foofu de ñu dañoo toll ci def làmb le fait sax ñëpp mën nañ d'accord bu leen neexee ne defaguñ dara ci làmb mais dañ toll ci def ci làmb parce que ay xadal da làmb dafa nekk ci kanam mais booy ñaa may ma euh, ah, baal ma léegi ñoom ba ngeen signé ak contrat Père Gaston boobu njëkkee bëri moom bañ ko laajee dane xamaguñu instant bi kii ak kii lay bëree ku ci mel ni makkan jël nañ ko mais ñoom dañ ne Balla dafa dafa feebar su ñëwee dañ xam kan lay bëree mais est que tey yow li comme dañ ne kii lay bëree pare est ce que loolu tamit non waxuñu loolu ok est ce que loolu source bu leer non waxuñu loolu ok Makan su mon frère maa ngi koy nuyu bu baax. Mm. waxuñu mm. ñun tamit dem nañ fa. ok staff bi moo tax man la. bul jàpp ne boo ñaaree tëj micro yi rek génn di wax staff bi dajaloo nañu woo Père Gaston dem seeti ko waaye ñu xamal ni ñu Balla Gaye dafa dem faj yi bu ñëwee wér day bëre yow mois de mai bu wér day bëre Gris Bordeaux juillet ah, loolu day wax bu ñu wax la te nekk boo xam lax boo xam ne boo nekkee làmb yéen ñi dund ci làmb xam ne ni nekkul wax bu cohérent dama naan la non Balla dafa dem faj yi bu wéree di ngeen bëre mai bu wéru juillet ngeen di bëre loolu mooy wax bu tegu waaye ñu xam ne nag am na leen lu ci nekk leneen lu ci nekk nag moo tax ñu jël suñu responsabilité te ñu am ci droit nag ak ku mën a doon ñun dañoo am droit comme moom nu mu amee droit ne xëccal ma kii arrièral kële ñun dañoo am droit ne ñun tamit duñu bëri ak moom mm. nan ñuy jox benn mm. adversaire te loolu kenn mënu koo dési ñun kenn mënul ne Boy Niang amul droit wax loolu ah ah ak koo nekk ci làmb mënoo wax ni amul droit wax comme moom am na droit pour tànn adversaire am ne kii laay bëree mm. ak estafam ndax dañoo war a xool lu nooy ñun tamit dañu am droit ne tamit duñ bëreet ak moom am nañ ci droit. mais li ma jaaxal mooy booy Niang ah yow tëggoo sa bopp Balla Gaye tëggul boppam. promoteur moo leen tëgg. moom am na droit ci loolu. kon nekk ci làmb munoo wax ni amul droit wax loolu. comme moom am na droit pour tànn adversaire am ne kii laay bëree. Hmm. ak estafam. Hmm. ndax dañoo war a xool nooy. Hmm. ñu tamit dañu am droit ne ñun tamit duñ bëree teg moom am nañ ci droit. mais li ma jaaxal mooy booy Niang ah. yow tëggoo sa bopp Balla gay tëggul boppam. promoteur moo leen tëgg. moom am na droit ci loolu. kon boo ko balaamee est-ce que du nekk. fa est-ce que may ma rek. est-ce que yow waroo wax ak promoteur ndax li ñu xam ci làmb mooy promoteur mooy tëgg làmb mooy jàpp date wax ay mbërëm jour tel ngeen di bëri Balla mbër bu ne am nga choix. mais est-ce que yow waroo focaliser wu ci promoteur bi ne ko lii nga ma tëggaloon. lii laay bëri lii laa war a def boo boo déggee ma wax la foofu. voilà bu ma njëkkee waxtaan bi mooy ne dañoo ànd dem seeti promoteur. voilà xam nga waxtaan bi dañ koy déwlante. Mm-hmm. bu nu ñu répété di répété waat rek. Mm-hmm. dañoo def délégation dem seeti promoteur bi. Mm-hmm. te promoteur bi tamit. du muy doon doon suñu kilifa doon suñu papa mu wax ñu ay kàddu. waaw ba ñuy signé contrat bi. contrat moo leen lié waaw. mu wax ñu ay kàddu ne. Balla Gaye day bëree Bombardier. yow nga bëree Tapha Tine boo dem pare ngeen bëre. waaw kay ba pare sénégalais yi tamit xam ni. Hmm. Balla Gaye bu muy bëre bu muy jël Boy Niang Boy Niang rek la am comme adversaire hmm. amul kenn ku fi njëkk a jël Boy Niang amaat am ku ko njëkk a signé contrat. voilà bu fekkoon ba ñuy signé contrat père. Hmm. Gaston daf ñu xamal ni. bu combat bi jeexee. Balla war naa ko taxawal yeneen ñaari combat. mais day bëre giri soog a bëre njaw ñu négocier tak ci boobaa duñ wax de. parce que ñoo ko wax nangu. waaw dama am question. ñun dañu bëggoon xam euh, tey professionnel bi ngeen di wax yéen mbëri ngay dem di signé contrat pourquoi jamono jooju toogoo sa am instant bi seen dernière réunion bi ñu def ñu xamal ma ni tam war a wax dama war a génn adressé ay paral yoo xamante ni dafa bëri ñu mu concerné ñu war ne wala war a génn wax moo tax hmm. noonu naa woo Lamine wax wala ma woo për bu rafet wax mais dafay des te ku ne mën na gis boppam. mu dama ne naa woowandoo gars yëpp rek. mu doon benn wax ku nekk gis si ñu ci war a gis di nuyu suñu doyen suñu mag suñu lépp mu ci bëgg suñu làmb ñu ngi lay nuyu di la jox sa ci wàccuwaay. waaw di wax ne nag waxtaan bi fenn rek la boo gisee ñu woote. fu ñu commencé moo dafa am ci lu ma jugee. muy suma combat ak Tapha Tine. koy nuyu de passage. bu félicité. di ko wax ne làmb noonu la. di ñaan ndam di jikko parce que ñu ñëpp ñoo bokk gaal gi te dañoo wax dañoo war a fexe gaal gi di jëm kanam rek mais pas mu teelu ginnaaw. bëre naa ak moom ñu gis li ci xew yëpp. ma am ci blessure ci biir làmb ji bëre ko ngor fulaak fayda ba yàlla def lu mu def waaye li may njëkk def rek mooy di ci jéggalu suma staff parce que après wax bu nekk teg nañ ko seen kaw. le fait que tamit ñoom li ñu leen teg seen kaw yëpp man la. Hmm. lu tax mu nekk man mooy man maa am blessure ci biir làmb ji génn ma wane ko mën na bu ko bëreeg moom mu jeex. Hmm. ba li ma ci fekk fekk ma ci. Hmm. ñii ñu jël course bi teg ko wax ji ñii ñu jël sama papa teg ko wax ji ñii ñu jël père Bokan teg ko wax ji waaye yooyu yëpp deel wax ni man la maa ngi jéglu bu baax suma esax. deel baalu ak xam ne làmb affaire de traite la affaire. waaw maa leen nuyu bu baax di nuyu yéen ñi teew fii yëpp. su ma mënoon a jaar ci ku nekk si tam foofu dama ciy jaar quoi. di leen nuyu di leen jaar di jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu population sénégalaise bi nga xam ne ñu ngi ñu seetaan. à travers site yi. léegi moom dëkk bi dox na dox boo xam ne ku nekk sa téléphone rek mën nga gis lu nekk xam lu nekk lu xew. di nuyu mon làmb bi nga xam ne foofu laa bokk. di nuyu bi ñi nga xam ne ñoo coiffé ñoo dirigé ba ci suuf ba ci mbër bu gën a ndaw di féliciter Lions yi. Mm-hmm. profiter occasion bi. di leen félicité bu baax. bu hmm. jëkkee ci njiit bi Matar Ba. di leen ñaanal tamit suñu boom defal leen ndam. ñu ni coupe bi. parce que loolu fierté Sénégal yëpp lay doon te ñun ñëpp ñu ngi koy ñaan. Hmm. dañuy wax ni jot na. waaw lu jot moom yomb daan na ko suñu borom yombalal. di di leen félicité bu baax a baax. génn nañ ci ay élection maa ngi hmm. félicité ñi nga xam ñoo gañe gañaay ak perdant yi ñu félicité ñëpp parce que gërëm gi gërëm bi génnul gaal bi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo bokk sama gox fi gaañe nekk sumay nit ku ci mel ne Abdoulaye Tumbo Isaaxa samay nit yi fi nekk tamit te perdre ñu ñaanal jàmm beneen yoon te ñu lu gën ci gox bi rek suñu boom daf ko daal ci kontaan ci retrouvaille bi parce que gën naa leen a gis yooyu tamit gën ngeen ma gis gën leen waxtaan dama koo xam ne rek dama nekk mbër boo xam ne dama staff waaw du mën di génn nii rek di wax noonu damay wax rek si war bu jolee war a wax boo xam ne toog nañu waxtaan ñun ma wax ma wax instant yi ne dafa boo xam ne dañu war a wax estaf bi seen dernière réunion bi. la mhm. affaire de sirite la. te de mbër la am na fu muy toll. da ngay topp sa direct topp sa sirite topp sa affaire bu xale parce que loolu am loolu la. moo tax mënuñu woon arrêté di wax ni dañoo gaañ ci combat mais ñu xam ne tamit ñëwuñu pour wax ne dañu gaañu après pour sarteel victoire la Tapha Tine. suñu borom may na ko ndam ci kaw boo ñëwee amul benn problème sarteel luñu ko. mais nag bu ñu bu ñu bu ñu gaañoo ci làmb bu ñu bare. Mhm. il faut ñu wan ne dañu gaañu wax ko. Mhm.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 ma am fu ma jëm muy suma diggante ak Balla Gaye foo ma tudd turam parce que la affaire de street la te mm-hmm. affaire de mbër am na fu muy toll da ngay sa deret topp sa street topp sa affaire u parce que loolu am loolu la mm-hmm. moo tax mënuñu woon di arrêté di wax ni mais ñu xam ne tamit ñëwuñu pour wax ne dañu gaañu pour sarteel victoire Tapha Tine ah, suñu borom may na ko ñu am ko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 boo ñaa mbër la boo xam ne war na mën a daan gars yi gars yi tam war nañu ko mën a daan parce que làmb la ñoo ko seet amul benn problème ñu ngi koy félicité suñu frère Tapha Tine boo ñaa la jàmm ak yeneen mbër yëpp côté boobu ci luñ génn foofu la ñu mën a wax mën a Tapha Tine nag tax du ma ci yaatal mooy promoteur bi daf ñu wax ni dañoo am dernier face à face donc kon contrat bi jeexagul ñu koy ñaax moom tamit ñun ay nawleem lañu te bëri nañ ba pare te mi ngi bëgg a yàgg mm-hmm. li mu war ak ñun mu def ko rek mm-hmm. parce que ñun tam li ñu war ak moom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 boobu ba léegi gisoo boo ñaa tamit génn wax dara ba léegi ñu ngi suñu yóbbu toog nag xam nga laam dafay dox boo gisee ñu wax sax yooyu wax loo wuñ après dañu déggaat yeneen tamit ba léegi ñoom bàyyeekuñu ñu dégg ñoom ñu def ay sotti daanaka Balla Gaye Gris Bordeaux lay bëree avant muy bëree Boy Niang war a Boy Niang dafay xaar ba Balla Gaye bëree adversaire yi mu war a bëri soo ko bëree ñu gis ci nag xam nga làmb yaatu moom gis si ay wax yoo xam ne yegg si na ba ñun donc nag bu yegg see ñun dañuy jël suñu matukaay du boo ñaa mooy jël matukaay mais estafa mooy jël matukaay ñu jël suñu matukaay toog réunion génn ma pour ma wax li ma war a wax dafa que ñoom nu ñu gisee affaire yi sax waruñu tub bëri ak man mais ñun waa kër booñaa tamit dañ leen wax nii par rapport suñu réunion ak bu ñu waxtaan lépp ñoom bu ñu wutee dara rek ñun yombalal na leen pour ñu xam ko tey Balla Gaye bu fekkee dafa bëre Gris Bordeaux ah. man Boy Niang du ma bëreet ak moom moom dafay bëre Gris Bordeaux pare bëre Eumeu Sène si ñaar adversaire wala mu kum ci teg hmm. mais man damay bëre ci ak beneen adversaire pour Sénégal yëpp ñu xam ko ak moom lamb yi nga xam ne dañuy xaar combat Balla Gaye ak Boy hmm. ñu war leen ne Balla bu fekkee dafa dem bëre Gris Bordeaux man Boy Niang dootuma bëre ak Balla am na droit pour tànn adversaire bu ko neex moom lay bëree. comme moom am na droit tànn adversaire bu ko neex bu bëree man tamit dama am droit tànn sama adversaire moo war a bëree. dootoo bëree parce que man seen garçon produit yi itam war a bëree. mu ne mu ne rek mu leen jox date parce que Pape Thialis joxagu bu leen waxoon suba suba du tal ngeen di bëree ma wax la yaa ak Balla Gaye date bi ngeen bëree. ñu ne ko amul benn problème comme ñu ngi laa ma ci daw. quand a Gaye nag depuis bañ jotee sama avance lu bari xew na fi ba léegi déggoo boo ñaa wax génn nañ fi. ma nekk sama préparation combat ñu ne dañ may déstabiliser génn wax daal ne boo ñaa bu daanoo duñ bëreeg moom bu daanoo ñu bëreeg moom. staff bi toog réunion ma ni gaa yi amul wax dañ nekk suñu biir rek li ñu tax jóg nañ ci nekk amul wax parce que tontu moom da ngay bàyyi ba tontu ci safe ñu continuer chaque jour ñoom ñu nekk ci débat boobu di ñu déstabiliser di ñu waxal mu bëri ak Tapha suñu boom def Tapha Tine gagné par avertissement ñu commencé xaar ñu sax ni gars yi ñibbi ci stade bi lañ commencé ak seen i sinapkat wax li ñu bëgg a wax dootuñu bëri ak moom jeex na c'est fini kii du mbër wax li yàqal na wër rond point ak wax ba léegi yéen ñëpp ngeen mën a seere boo ñaar déggoo leen ko wax ma nekk sama rëb yàlla nag suñu boom dafa mën àtte nit ki moom bu la fayee sa bool nga met li nga leble moo nekkul suñ boroom àtte ñoom ñu bëre def pire que daanu booñaa la yaa ngi dégg ñëw ñu daal leen ci géew bi mën naa leen mën naa wax te ñu daal leen trois fois ci journée bi la ci géew bi daal la nga jaaxaat daan la par Gaston production moo tëgg sama combat ak Balla Gaye jox ko jox ma avance te yéen ngeen xam début bi yëpp fu may si ba fii mm. moom dafa am droit de dafay seeti Gris Bordeaux pour bëreeg moom avant Boy Niang hmm. te ñu xam ne Boy Niang moo njëkk a sonné contrat hmm. te xam ne Boy Niang moo njëkk a jot avance ci ci ci ñu Balla bëree yëpp hmm. Gris Bordeaux Balla Gaye dañ ko jëkk a dox mu yàqu Gris Bordeaux génn wax jël avance delloo Gaston ne duñ bëreeg moom donc man ba may ñëw di si yeeg Balla Balla amul benn combat burul Bombardier wax moom waxtaan dëgg rek moo neex mois de mai 2021 ba ñu sien Balla benn combat la am boo xam ne moom la téye muy Bombardier à part Bombardier Boy Niang nga am comme maanaam xel mënul nangu. nga bëgg a tëb booy ñaar jël beneen adversaire. te ñun ba ñu demee stade bi dem nañu toog ak père garçon. mais wax bu ñu wax nekkul wax bu tew wax dalu suñu xel. Balla Gaye dafa dem faju bu déwee bu wéree dina bëri yow mois de bu wéru day bëri Gris Bordeaux mois de juillet. loolu wax teguwul xam nga wax teguwul dafa dem faju ji am problème ne dem faju mais bu faju joo ba ñëw. mooy wër bi nga mbër bi nga war a bëreel moom ngay bëreel. ñu ko signé. munoo waaw maanaam munoo tëb mbër dem jëli mbër munuma feebar feebar ci Modou Anta ma bëgg a wér ci ci Fadel. làmb doxewul noonu. léegi nag làmb ji nekk affaire de affaire de deal affaire de mafia ñun doxewul noonu waa kat Boy Niang te ñun ay doomu Pikine lañu. te Boy Niang mun nga ko gis ak ñu boo xamante ni yàlla daf leen may bu baax. may leen teraanga ci réew nekk ay kër gan ci réew mi bu ñu waree wax dana am mais suñu waree wax dañuy toog waxtaan ñu dañuy génn nga wax lii ak lii ak itam laaj na ko ñu kañ lañ war a bëri. mu ne leen mu ne rek mu leen jox date parce que Pape Thialis joxagu leen date Pape Thialis bu leen waxoon suba suba du bi ngeen di bëri ma wax la yaa Balla Gaye date bi ngeen di bëri. ñu ne ko amul comme ñu ngi tegu. laa ma ji daw. quand bu ba ñu sama avance lu bari xew na fi mais ba léegi déggoo boo génn nañ fi. Mm-hmm. ma nekk sama préparation combat ñu ne dañ may déstabiliser. génn wax daal ne booy ñaa bu daanoo duñ bëre ak moom bu daanoo duñ bëre ak moom. Mhm. staff bi toog réunion ma ne gars amul wax dañ nekk suñu biir rek li ñu tax jóg nañ ci nekk amul wax parce que tontu moom da ngay bàyyi ba tontu ci safe mhm. ñu continuer chaque jour ñoom ñu nekk ci débat boobu di ñu déstabiliser di ñu waxal mu bëri ak Tapha Tine suñu boom def Tapha Tine gagné ma par mhm. ñu commencé xaar ñu sax ni gars yi ñibbi ci stade bi lañ commencé. ak seen i kat wax li bëgg a wax. dootuñu bëri ak moom jeex na si fini kii du mbër wax li yàqal. Hmm. na wër rond point ak wax dinañ wax. Hmm. ba léegi yéen ñëpp ngeen mën a seere boo ñaar déggoo leen wax. Hmm. ma nekk sama ruq. yàlla nag suñu borom dafa mën la fayee sa bool nga li nga leble moo nekkul. suñu borom àtte ñoom ñu bëre. def pire que daanu boo ñaar yaa ngi dégg ñëw ñu daal leen ci géew bi mën naa leen mën naa wax ne ñu daal leen trois fois ci journée bi daal la ci géew bi daal la nga jaaxaan daal la par bu fekkee da nga bëgg lu yomb. waaw ah. Balla Gaye bu fekkee dafay wut lu nooy. waaw. Ah. fi mu toll nii mooy maire maa ngi ko firiteel sama grand. Ah. foo téye ko ba ko benn place muy jaay juuti. muy dagg juuti dafa dafa. bëgg amul dem ku xam làmb xam ni. boo bëggee bàyyi fi booñaa dem giri mënoo ko teg ci def jëli 2015 nga am victoire. tawatoo ma ko dama expliqué rek. Ah. waaw bu baax la maa koy nuyu. mënoo mm-hmm. ko teg ci victoire. mënoo mm-hmm. ko teg ci palmarès. mënoo mm-hmm. ko teg ci performance. parce que 2015 boobu man teg naa ci 6 combats am naa ci 3 victoire donc ko teg foofu. te du combat jàpp merci te tàngal ceeb la yëpp. Mm. donc nag yow da koy teg nii rek non non sama mbër ni ma ko gisee nii pare ko pour affronter Boy Niang. naa ko wutal benn combat en attendant mu defaru Boy Niang toog xaar non non man du ma toog xaaral doon. pour ñu xam loolu bu baax Balla nga dafay dem bëreeg Gris Bordeaux Boy Niang dafay bëreeg keneen te du ma dëppaat di bëreeg moom moom tamit bu mu dëpp di bëreeg man ku nekk na jël sa yoon ñu connaît suñu yoon mu jeex tàkk loolu waaw te man Boy Niang ko wax te nekkul loo xamante ni dama génnee nii di wax boo gisee ma woo xam ngeen ñi leen woo téléphone leen pour ngeen ñëw donc staff bi ñoo wax te loolu lañ wax loolu lañ teg ci taabal bi terewul ko mu bëreeg keneen de na ci droit mais ñun tamit am nañ droit ñu tamit xool loolu moo fi nekk. jërëjëf yéen nga bëreeg Balla nga bëreeg Tapha Tine. Hmm. ci guddi gi wax nga ko sànq. bi làmb ji jeexee ci lañ gis Aziz Ndiaye def sox. ne Balla Gaye euh, du bëreeg Boy Niang. ci moment boobu ñu bari ñu ngi doon polémique naan est-ce que Gaston du Balla du moo nekk ci ginnaaw. ñu dem ba benn moment tey ne. Hmm. maanaam parcour parcours làmb dafa yàgg. li leen boole. merci. man dama débuté làmb rek yàlla natuma ak mbëru Géejawaay sama combat yu bari non du du débuté làmb bëri doo sax mais bëri simple la yàlla natuma yàlla natuma yàlla natuma ak mbëru Géejawaay parce que carrière day demee noonu. Mhm. ba commencé break marre. fa nga li ko. bëre bëre faram faram deux mille faram tuuni bëre waaw daan na Maguette daan faram daan Pam Mbaye. daan Eumeu Sène Junior daan Lamine Goro. non non mbapat bi laay ñëw ba pare. Hmm. waaw dañuy déglu rek ñu waxtaan ñu déglu wataan lépp. dañuy déglu waxtaan. parce que wataan bi dafa am solo tamit. dama ñëw fi pour leer quoi. vas-y waaw leen ko mu développé. ci mbapat bi laa ci mbapat yàlla defal na ma daan Marley daan Pambaay ci mbapat daan Eumeu Sène ci mbapat daan Lamine Goro ci mbapat daan Faram Tuumi ci mbapat donc fa la ma yàlla commencé ak ñoom ma dugaloo arène tamit sama adversaire ñëw féete côté boobu chaque jour dama koy wax ne nekkul maa géeje waaye guerre parce que dama fa am ay danaa fa am fa turandoo am fa ñëpp mais laa moom mu féete ko côté boobu ma ñëw day école mi nga xam ne temps yooyu mu nekkoon liet dajeeg saa kajoor dajeeg les deux dajeeg guy gi ah, dajeeg dajeeg la dëggal deux dajeeg saa ceeb too ko dajeeg la dëggal deux mais côté boobu damay wax mention spéciale parce que guy gi ak la dëggal deux xam nga parce que moo duggee seen gox anoo fa même su ma bëree woon moom sax daan ko dama bëri lu bari lu ma def damay dem ba bëri ñu ma war a bëri mu jeex ma dëpp joxe ay revanche jël ay revanche parce que làmb loolu moo fi nekk boo ñaan li du jaaxal li du jaaxal mooy Euh, li nga ne contrat moo leen lié euh, li nga ne moom la la père Gaston wax su Balla gay fajoo bu wéree su wéree bëreeg yow su wérul bëreeg Gris Bordeaux loolu noo koy jàngatee ci mbër moo xam ne dangaa xaatim ak bi ngeen di xaatim ci lan ngeen xaatimoon da ngay bëreeg Balla Gaye ci booy aat nii wala lan la parce que wér bëri waa ko wér du bëri moo xaw a jaaxal waaw parce que non loolu lu mu la moo jaaxal Sénégal yëpp bu ñu nëbbatuwul rek ñu waxtaan dëgg mm-hmm. mun nga ni boo waree da ngay bëre kii mais boo wëru lekk da ngay bëre loolu loolu du la loolu loolu xamuñu fu mu tegu mm-hmm. mais xam fu xam fu mu tegu nag moo tax ñu am pour jël suñu responsabilité mm-hmm. ay xale lañ ci làmb nag mais dañuy sant yàlla bu baax a baax man sama benn morom ma defar man génération bu ma bokk muy génération Ama Baldé Raglos laa bokk génération Gouye Gui mm-hmm. Sa Thiès Garga Mbossé man ñoonu sama benn morom sama génération yabuma ak ku mënti doon dafa am fu ma jaare yow nekku mu mbër boo xam dañu la këf rek ñu tëbal la bëgg la yóbbu foo yegu déedéet damaa bëre sama morom mu jeex fi mu toll boo ñaa na dëpp bu dëppee tamit day jox ay revanche rek mm. waaye amul benn moroomam bu bees muy bëreel dama jaar fu mu war a jaar ñafe sama laaj beg si fi ma ne ak mu mënta deme mun nga ko bañ a war nga bañ ma supporté nga waxal ma lu ma neex bu la neexee mais fu ma yegg si dama ñafe suma laaj ba yegg si te ba ma ñëwee tamit taamu ma boo xoolee ñu naan début booy ñaar dafa difficile poids lourd ñaar gën a ñaar yi gën a métti ci poids lourd laa laa dajal yëpp ñaar ñu gën a métti bëree ci poids muy Tapha Tine ak Lac de Guiers ñoom laa donc sama yoon foofu mu metti hmm. parce que ñi may bëreel ay pongal lañ yoo xamante ni hmm. suñu borom hmm. moo mën moo tax ñun loolu lañ xam ay taalibe Cheikh Sall ba dañoo xam loolu moo tax wax bi mu bëri bëri yëpp déggoo ñu wax ku ñu sànni ay xeer génn wax ñu ay da ngay wër rond-point ay lii ak lii ay dóomu bëri yëpp déggoo ñu wax mais suñu boom dafa àtte ñu xam ne yàlla léegi ne kenn naw te ñun faaruñu kenn ragaluñu kenn ak bu mun doon boo ñaa nag dafa nekk mbër boo xamante ne dafa am mental boo ko dafa ñu ma àndal man yenn yi le fait que seede yàlla le fait que sax sama combat ñoom mën nañ ko tourner wëndeel ko parce que sama combat ñoom mënul yomb hmm. parce que man nekk ma mbóor boo xam ne ay sinab wala ay gàllaay ay sinab yëg ci ay guub ma genre mbóor boo te man doomu Pikine laa hmm. man doomu Pikine laa du xam na ni hmm. Balla Gaye mu nga war a wutal yoon di ko xoolal fu nooy muy dem ci giri wax ma laa boo ñaam yoo xam dafa nekk ci yoonam moom bu yàlla defee jàmm rek ci moom ak ci man dafay bàyyi lam bàyyi ma fi donc booy xool yoon di ko wutal yoon mu wut fu nooy hmm. naan day tourné booy ñaa bàyyi ko fi dem jëri gi yooyu parce jàpp nga ne dafa nooy hmm. non ñun duñ doxee noonu de boo jàppee loolu yow dafa ni war a defaru ci giri parce que ñun xam nañu lépp xam nga milieu làmb ñoo wax fii balaa ngoon day dem géejuwaay hmm. foofu tamit loo fi wax balaa ngoon dafay si parce que dëkkuwaay bi parce que dëkkuwaay bi waaye si ñu ngi may jàng sera en te boo tegee réunion sax waxtaan tënk balaa muy fajar piscine da koy yëg. parce que ñun dañoo roofloo ñu na ñun. ñoom tamit loolu lañ am fii. donc nag booy toog ne non sama mbër bi fi mu toll ni baaxagul. wala pareegul. li mm. ma def direct ci booñaa il faut ma jër gii di defaru soog ñëw ñëwaat. Mm. seede yàlla loolu duñ ko nangu.